Jangan nemu oh, masih, jangan nemu. barke Serigne Bamba Sénégal amul sa fay le Sénégal est fier de toi le Sénégal est fier de toi kontaan nañu billaahi le grand frère sama gars yi maa ngi jeex non yaa ngi jàmm ça va bravo yow ay na nga garmi nga dund nañ ko ak yow fii nga génn wane na gay na nga nga duggaat wane na gay na nga wane sa bopp ne gaynde nga fii génn wane sa bopp ne gaynde nga duggaat wane sa bopp ne gaynde nga le Sénégal est fier de toi et l'histoire retiendra barke Serigne Touba yow xool di jeexi yàlla moo lay fay ndaw ñi nga yow la ñuy roy amul looy amul amul tiit amul ragal nañ cee continuer. Diana Diop mooy sama cousine. moo tax ma lay laaj madame Mbacke lu tax nga am xadar. ma ne leen xam nga ni Mortala sama doom la ko Mortala ak Bilal yaag Bilal Diatta yéen a bokk benn maam. xam nga yaag Bilal yéen a bokk benn maam. parce que Seydina Mohamed Madou Fale Awa Diop day del xujjo ko ba sa maam. Ah! Never.